jàkkaarloo usmaan Sonko ak Adji Sarr démb ci kanamu àtteekat bi nekkul lu soxal sénégalais yi ñu dajeel la soxna si di nëbb gis ne am na lu ëpp solo ndaje usmaan Sonko ak Adji ci si dëkk bi. man ndaje Adji ak Sonko man dama ne affaire boobu man dama yaakaar ne day gën a tardel Sénégal ndax saa bu ñu ne Adji Sarr ak Sonko ñu ñi seen fit yi du toog de boo waree liggéey dangay ragal boo toogee di liggéey bu ñu nee waxtu wii la balaa waxtu woowu yow nga dagg sa liggéey nga daw di ñibbi ndax ñun borom njaboot yi bu ñuy xëyee fu jógee ci banlieue bi di ñëw dakaar pour ut si li ñuy am bu ñu nee aj Sarr ak Sonko foog nga teel ñibbi dagg sa liggéey boo amee looy dépensé suba. foog nga daw boo ko amul di nga daw ndax bañ rek leneen fekk la ci ah seen daje bu metti boobu fukki nit ak ñeent ñu dee ci loolu rek waroon naa de ñu war a teg affaire Adji Sarr ak Sonko waaw waaye bu ñu koy jël di ko teg saa su ne di indi fitna ci dëkk bi loolu man daal pour man wax jooju war nañu ko teg nee te wax ci dund bu cher bi waaw dëkk bi metti na lool jaboot yi sonn nañu loolu moo ma gënal daal ñuy wax affaire Adji ak Sonko saa su ne di génne gendarme yi ci tali yàq essence boobu loolu perte temps la pour man lu li gën a am solo ci biir dëkk bi waaw. footballkat bi jàpp ne confrontation mënoon na ñàkk ndaxte Adji Sarr amul lenn luy firndeel tuumal yim teg ci du usmaan Sonko. ni ñu ko gisee vraiment nice ah, tamit. dëgg rek moo war a dem parce que Ousmane Sonko moom je pense que gars bu bien la ak euh, nu mu mënti demee su doon tey am nañ preuve si moom dinañ ko téye ma loolu laa gis mais gis naa loo xam ni tey suñ ko gënoon kii rek femme bi moom dina wax dina avouer tey su doon am na ay preuve si waa ji da koy génne mu teg metre El Hadj Diouf bu waree kii bu mu waxee Ousmane Sonko jël na preuve teg. muy keneen ak keneen mu teg kon tey ñoom ñooy sonal seen bopp rek mais xam naa ne moom amuñu preuve si moom man loolu laa gis vraiment. yaakaar ne yoon dina def liggéeyam seetal Ousmane Sonko mooy gis-gisu militant Pastef bile. Euh, affaire boobu dafa nekk kaabu bu critique boo xamante ne cas bu intéressant la mais am nañ am nañ yaakaar si suñu justice quand même mun na def euh, justice boo xamante ne ça sera légal justice boo xam ne dafay clair. ba ñu mën a setal Sonko carrément moi moi je l'ai dit je suis un gars passif je suis xool ni ñuy setalee Sonko rek mu duggee fi quoi parce que Adji Sarr lu muy lu muy joobee nii mu ñuy a soof quoi gis ne jàkkaarloo bi daa setal Ousmane Sonko rek. Ah, li ma si jàpp moom ak li ma dégg démb moom ah xam naa ne gars dañoo daanu quoi waaw dañoo daanu ba nërmalu kay waaye Sonko baay mooy loolu gaañ kooku c'est un quelqu'un baay si dëkk bi. Ah, tamit ak affaire bi nu mu demee noonu tamit waaw day tax ne sénégalais yi xam tamit lu leer tamit rek xam na ni sawaay moom deful dara dañ ko dañ ko dañ ko sosoor rek waaw mooy lool man daal loolu laa am li ma si wax quoi franchement waaw justice tamit ñu ngi def seen job tamit si benn instant waaw ñu ngi def seen liggéey tamit dëgg la tamit quoi mais waaw Ousmane Sonko daal mooy lool waaye si wax daal bàyyi waaw ja la daal champion la mooy loolu. gars moom boobu boo nekkee champion moom na nga jéem a fexel fexel bu ne mais tamit lépp daal suñu borom bi bu ànd ak yow rek yow lay àndal ko kat bi ñu def procès wax ji jeex mooy li ko ñor. man moom jàpp naa ne procès bi mu ngi bëgg yàgg trop en fait donc mu euh, ko mënoon def benn procès bu mag comme ça ñu yeewi askan bi moo moo moo moo gën ko en fait parce que lii nii nii nii kenn xamatul exactement ñoom ñaar kan moo tooñ ou bien kan moo kii kan moo am dëgg wala kan moo kan moo kan moo kan moo amul dëgg. donc bu ñu mënoon am projet boo xamante ne euh, ñoom ñëpp dañ taxaw comprendre ñoom dañ taxaw comme ça ñu gisé leen benn yoon parce que man loolu laa loolu la loolu laa loolu laa gën a bëgg quoi parce que boo xoolee nag depuis seen confrontation jusqu'à présent parce que amoon na ay gaañu gaañu amoon na aussi donc euh, amoon aussi ay journalistes yu bari wala ay nit yu bëri nga xamante ne dañuy perte seen liggéey quoi parce que mënatuñ liggéey donc loolu moom. franchement bu ñu def benn projet yoo xamante ne projet bu xamante ne projet bu baax quoi projet bu baax nan laa ko jàppee maanaam ñoom ñëpp dañuy taxaw quoi ku nekk day taxaw wax dëggam keneen ki wax taxaw keneen ki taxaw aussi wax dëggam quoi comme ça euh, juge yi juge yi atte wala procureur atte leen quoi benn yoon quoi man loolu laa jàpp loolu moo gën quoi. gis-gis bu nu mel la soxna si tamit am. man. man nañu dem procès ñoom nañu jàkkaarloo ñu wax wax ji jeex benn yoon ndax ñun itam ñu mën a dund suñu dund. ñoom ñu ngi dund seen dund am nañu lu ñuy am ba pare waaye baadoole yu mel ni man ah ñoom bu ñu nekkee saa su ne bu ñu nee procès dëkk bi yëpp jaxasoo loolu itam jaaduwul nañu leen procès àtte benn àtte mu jeex tàkk waaw ku ne nee ci jàmm. kuñ ciy tëj ñu tëj ku ñoom ñoo xam daal waaye ñun suñu yoon nekku ci. am mu mel ni askan wi tey nañ ci mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñenn nañu gis ne lépp ay tapalee la ñi ci des gëm ne projet rek moo mën a jeexal coow li Sénégalais yi dellu si seeni soxla.